séeréer ko ko nak daa mel ni jekk naa fi mu ne nii. jekk mel <laughs> bëgg naa ni baati ñibbisee jàmm ak salaam. ma ne ma ñibbi sama kër yaay. Hmm. daal di fay toog. <laughs> looy daw ak lu la fi naqari baadu yaalu Nafi Mbay moo tax ngay dem yaay Nafi Mbay laaj na paas dem na neen dafa am lu urgent lu mu dem lijjanti ji te li ma gën neex ci yëf yi sama mu Nafi mbay moo ñu def appel trois. Hmm? man moom ak Nafi Mbaye. déedéet kay ñu jéggalante baalante ak am na mu solo léegi man ak moom ñu ngi ci jàmm ak salaam loolu ma ci gën a neex. Ah, lii daal mooy. Hmm. ginnaaw jàmm daal. jàmm ko ko gën. Ah! macha allah lii moom neex na waaye nag du lool sax xam nga benn jour mas naa ñëw sa néeg am lu ñu waxtaane hmm. man la dañ may waaj a takk. takk boobu nag daanaka moo jege si dañ may waaj a ñaan si ma bëgg nag wax dëgg yàlla ñi may ñaan si buñ ñëwee ba di ma ñaan si fekk mu sama kër yaay ma toog ndax ku ñuy takk wax dëgg yàlla dañ laa war a fekk fan la war a fekk. ku ñu takk nag war a gàtt tànk. Mm-hmm. loolu moom rafetlu naa ko lool bu dee loolu rek tax ngay dem. Mm-hmm. amul benn problème. lenn rek ma xaw a métti ci waxtaan gi. Mm-hmm. Alima nan ngeen di sosee ba ñu war leen a takk. ba ñu war laa takk sax ñëw di waxtaan sa yaay waxuñu dara nga <laughs> foog loolu rafet na. yooyu ko yëgoo na dama leen man ak Nafi Mbaye kenn ko ci. yow yow sama yaay ndekke feebar fii ba paata daggal ko bii yóbbu Maroc sama yaay nekk fi dafa suivre ay traitement man de yëguma ci dara xawma barki démb moo njaay laa ko yëg. paate man hmm. Hmm. kon de yow yëgoo li xam leen rek ma nekk metti ci paate. paate mooy koo xamante day nëbb ay soxnaam. du wax kenn dara. mais loolu warul. soo amee ay soxna da war a waxtaan ak ñoom waxatuma da nga am si ñaar te man leer na man lii nag may yëgu ko. ma man mii bokk moom ndey ji dama ko yëg maa koy soog a waaye est-ce na fi yëgu ko man na fi moo ko yëg ah est na fi mbay ma sama jàmm waayo na fi a yëgee du ma ko xam nga li was na na fi mbay bu ko yëgoon ma yëg ko man <laughs> looy de ah, neex nag waaye diggante ñaar jëkkër ak jabar ah nga foog na lu yendu ci moom rek daa war a fanaan si yow may ma sama jàmm xam nga Nafi mbay bu yëgoon ni sa yaay dafa feebar Nafi Mbaye wax na ma ko wax ma leneen waa yow xaritoo ngeen toroom nag waaye du lépp lépp lépp tamit lu mu waxtaan ak jëkkëram rek da la war a wax de hmm. <laughs> ah <laughs> daal dinaa ko xamal hmm. ne yaa ngi dem da ngay sëy Alima Alima boo demee sëy da fa sëy de Alima xamante nañ li nga wax def fii lépp mi ngi fi tege xamal sa bopp nga changé du soppee ko nii ñu ngi ci jàmm boo sëy dina ko fa def de sëy dafa ànd ak muñ te xam naa la xamante nañ toj nga fii du ma toj feneen de bu ma tojee fii du ma toj feneen Aliou génn ci yooyu wala déggoo ma ah, <laughs> Aliou ma woon ak Aliou mii ça fait baax na su nga li woykat bi ne ndax boo demee di nga sëy hmm. man ma tontu ko ni ko sëy rek ba dee damay sëy ba dee kon nag fa seey laay dëbb naa kër gi waaye fee du fa dëbb <laughs> fee damay sëy ba seey <laughs> kon baax na xam nga lu ma bëgg hmm. perruque ba nga ma digoo ah gannaaw ba damay sëy war a defar ba mu baax taxaw ci ak seenu or bi taxaw ci lii daal laa wax man loolu ba mu metti hmm. su ma jógee dinaa seet na fi mbay ñu waajal la yabal la bagage yi jox la nga dem sëy du nekk da ngay sëy hmm. boo newee na nga fa <laughs> nga wax xoola mhm. ngi dugg ci biir waxtaan ak na baax bii Ali autrement la Kalau ali autrement wow wow, ah mais kontaan naa te lah, ali ma nen tey sëy dëgër nga bopp torop ali ma siapa? ko fa ci loo ne foo jëm boutique ba hmm. kumba daal laa yónni gis nga nga di capp-cappal ak lu ne mu dugg ci kii rap la kumba xale la nak yow dafa soow xale la nag xale la nag boutique ba daal laa bëgg a dem am yu ma li jënti ñëwaat téere wax ma dem jëndal dem fan ma dem boutique ba la eh man mi may sa jabar bayil ma wacc mo lol day dara jox ma rek ma dem yo dama bëgg dal bu ngone ñu def ay petit nem ay petit fou xam nga xawa a ñam xaw a am lu ñu griñité ci eh, dal ma koy defar jox ma ma dem jënd. wa léegi bayil ma dem duggal suma ma nga defar ko. wa lol ba tey mën naa wala voilà mën naa ne waaw noonu ngaa ma dem nga <laughs> ani Aya. Aya moonte mom la do waxtana sank ah ok. wa wa moo tax ma ne na ñu waxtana ak yow ndax. Mm. dama bëgg yewé ko fu ñu ni delu kër ga. delu fan. kër ga lu tax Alima Ah. déedéet déedéet wuy ma bu dee coow yi sew yi moom loolu c'est déjà passé man ak yow yëpp ñoo ngi ci jàmm léegi alhamdulilah mm. sa yaay mënu fee bañ a nekk Rose dem na démb ànd ak Pia mm. nee lañuy dem kër ga léegi yow nga bëgg ñu fee bàyyi ñun kese pour lan kan lañ fi nekkal xam dëgg waaye dañ may waaj a may ku lay takk Matar du ko baax bul sëy ak Matar de Matar baaxul Matar baaxul baaxul de góor buy dóor jigéen la sama bàjjan Daba Diop. waaw waaw doomam bi laay sëyal moo may tak bàcc. ah sa bàjjan Daba Diop. waaw bàjjan moo may tak bàcc. ay yow macha allah félicitations. merci waay jërëjëf. ah yal na def jam jigen li kese la Alima. aduna amul solo. Mhm. bo demee nag na nga góorgóorlu fonk sa bàjjan. Mhm. fonk say njëkke mhm. fonk say goro. boo ko rek am jam waaw àdduna yàggul. yow moo wax dëgg yàlla nit ku baax nga amoo benn problème. billaahi amoo benn problème Alima dangaa baax de seytaane moom mooy dugg fu mu xajul mais yow nit gënu la mën naa kaa waat. baal ma àq bu baax baax baax. Alima yooyu yu fi amoon la jeex na nee naa la fan yëpp bàyyil di ma baalu àq lu war a am la munoo wax ba amul léegi nag pour mu jeex yow yaa koy jéem a ba mu ron nga tekk na li fàtte ka mën na ne. li ma la lebal suñ ma ko fayee fii may sëy du ma neex ko fay maa ngi fi je suis maa ngi fi ayaa mi ngi fi yaa ngi dégg ñun ñaar ñëpp ñoo ngi fi bàyyi li ngay def d'accord dama toog ci biir maa ngi ñëw bàyyi jooy yi nag bàyyi jooy yi dama toog maa ngi ñëw ayaa yaa ngi foofu xaaral ma dem boutique ba ñëw laa tudd. xam nga Sénégal dañu jàpp ni Marie Diaw moo fi taaw. dañ koy ak Inde. mais xale yu rafet ñoo ngi ci <laughs> dëkk bi de macha allah yaa ngi mel lu la neex. merci. waaw daanaka yu mel mi ngi am ci dëkk bi te ko. allah. duma la ndax sama amul de tur tur bi man mambuso. Mambuso. ni nga rafetee noonu la tur allah mambuso. Bousso am jëkkër man aw ma jëkkër ah am copain copain non non aw ma kii sama njëkkee la bu solo tudd. waay. rakk Elimane la sama njëkkee ju baax si man sax. ah bon mhm. sa njëkkee bi nopp naa ko de. Mhm. dama ko may. xan waaye kii nag junior problème bi mooy ay millions yu bari laa ci bëgg de. <laughs> loolu amu solo li ci am solo mooy na ma bëgg rek te man bañu ko. wax na bi ci la. Mhm. <laughs> ci la bokk dëgg la maa ngi si. ok. nga xóot fit yow. mais man li ma bëgg rek laa wax. way maa ngi toog sax ñu ngi xóot. moo gën si yow. naaje nga nag waxante wuñu woon lii. fii nga ma teg ma toog fi bopp léegi. boo xamoon embouteillage bi ne ci réew mi. naaje nga nga naan ma embouteillage naaje nga dinaa nag waaye noonu laa teelee jóg waaye diggante bi waaw nanu gaaw ah ñi ngi liggéey nag bàyyi leen waaji waaji yi liggéey bàyyi leen waaji <laughs> yow waaji seddalul sa xol de li tax lu nu wax nga ree fi mu toll nii xam naa ko waaw c'est normal sama ci kër day waaji ñëw bon di don eh? na ngaa changé waxin <laughs> <laughs> xam nga maa la doon tendance waye fim mu toll nii moom remontada nga ma def. ba nga lay won lan la la ëppalee rek mais yow da cee toogoon. Ah. di ñaawale. nan damay defal sama jëkkeer reer di wan say air instant bi nak man ma lay wax damay defal ni sama jëkkër reer waaw baax nopi nopi na amul ben problème <laughs> te ya jékku d'accord na ma jékku normal nay sax mais nak euh, lan nga préparer sax yow pour def déjà waaw ay vaisselle changement garde-robe pour niw yi ay fer ay cuuraay li ci def nag kenn du ko wax ci kaw ci suuf lañ koy wax lu neex li nga neex lii ngay wax li nga neex mais nag Wessely euh, de xam naa ne boo ko dressé leer na ma leer yàlla ne moom noonu rek la namu ci réew dangay laaj wala dangaa xam di ci tëru damay confirmer jàmm <laughs> <laughs> mais ana Aya aussi ba moom mu ngi préparé. non Aya moom pareegul Aya daal man osé problème la ma def Aya depuis Paate wax ne mi ngi ñëw dafa mel ni ku ñu fóot Aya dafa dafa mel ni dañ ko weccoo. looy wax nii lu xew. changé complètement man xaw ma lu xew. looy wax nii.

tawima sa jëkkëru mag day waaja ñëw ah bon waaw waajal il faut nga ñëw nag jàpp ci combat bi ah loolu nouvelle bu neex la waaw bul wax dara bàyyi ma kër gi dinaa dugg ruq ruqaat yëg defar ba mu baax eh, comme d'habitude fépp bu fii tili xale bi dana ko laal ah? gërëm naa ko de ana maya maya moom ak kumba ñu ngi ci biir ñoo ngi waajal Sophie yow yow laa bàyyi woon néeg ba de mbaa tëj nga caabi tëj nga ko bu baax ak caabi kër ga daa ay sàcc lu xew. Hmm? Hmm? na fi bay. Hmm? su ma la waxee quatre-vingt-dix-neuf pour cent naqar yi may dund sama kër gee xale bi yee ma ko teg. lii loolu <laughs> mii moo tax si nga bi nga nee moo lay grand ménageal fii damaa mel ni ku ñu xëpp paan ndox Sofia du laa dara di ma jaxaseeg sama goro bi guddeeg bëccëg suba ak ngoon ki li ma teg kër gee yëpp. <laughs> Mose yow ya wara bayina botu. nëbbatu yow ya wara bayina botu. parce que Sofia mënul ñew sama kër jammal ma jammal sama njabot. yow ngay sama copine ñepp xam ma ak yow ngay sey ak magam jammulul nga di mako neub. nëbb muy ñëw sama kër nak di dugg nu mu ko neexee Motax bi nga musoo maa wax ni mom bokku na ci programme bi mom buma xamone bokku na ci li réglé na kaam bu yàgg du lepp lañuy wax waye ki lepp loko mënti wax tay su demee ci yaayam la ko yóbbu. Eh. goro bi dina ma sonalaat tey rey ba ma dee. yaay dem wax ak Sofia lu neex wala déggoo ma. dafa jaru ko. Maya. ñoom yaay. doo ne su papa dee ñëw suba. waaw. Ah. damaa bëgg bu subaa. sa kanam benn ñagas ñagas bëgguma ko ci gis. damaa bëgg ngay kaf nit yi di ree ak nit yi fu nit yi toog nga toog fa te nga bàyyi beru bi bëgguma sa papa am benn ñaaw njottu si yow mii man ak yow am na lu xew est-ce que yaa ngi may mm. la ko waxaat ñaari yoon. am problème yaay waaye nag lenn rek laa lay laaj lan moo tax yaay booy tey bi nga xëyee nga ne ma demal sangu sol yére sañse comme nit ñi te yaay booy loolu mosoo ko def.

limu bëgg nga tontu ma ci la bëgg nga nga leeralal mako ba mu ci tontu sam pa bu ñëwee dama koy taaj nga tok nga wax yow lan moo tax nga may toroxal lan moo tax nga bañ ma tuti nga pour xam ko sa bay day ñëw moo tax nga tok sama kanam tey raj raj di wax gauche droite <laughs> so wax ma da bëgg so loxo nga wacc ko ci suuf Maya man ngay jay bandi lu maay sa nday ma la jur wala ngay jay capable ak coupable ma la gëna capable ma la gëna coupable maay sa nday ma la jur wala ma faté te wax kooku yëggagul ci. yaay li ma la wax laaj naa la ko nee naa la tontu ci li ma la wax moom si tontu sam buy ñëw dinañ ko régler. waaye Mayab est-ce que man xam na ni man lay waxal d'accord sa baay day ñëw moo tax ngay rajji rajji na fi mbay laay woo. allo Nafi Mbaye kaay nga wuy ma ñëwal léegi É, vai.